mu ngoog jaa ngeen jëf mbokk yi tey ci talaata bi euh, juróom-ñaari fan ci euh, weeru euh, novembre bi léegi ñu fas yéene kon daal di ñëwaat ci seen émission 12 minutes chrono comme ni ngeen ko waxee wala ni ngeen ko xamee fukki fan fukki minutes ak juróom-ñaar fukki minutes ak ñaar ñu daal di wax ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum actualité na ci njàng bi ak njàngale bi tey jii xam ngeen ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci enseignement moyen secondaire de dañoo amal ab gréew gréew nag boo xamante ne journée morte lañ ko woowee CUSAMS euh, SAEMS US ñoom ñëw dañoo daal di ñëw euh, boolu ci euh, boobu lépp xeex muy nag xeex boo xamante ne door nañ ko niki tey jii daañu ci ñëwaat yaatal na lan moo ko waral wax tamit ci li nga xamante ne moom mooy kon li nga xam moom mooy kon daal di topp ci li ni mel loolu yëpp dañ ko waxtaanee ak suñu gan gili Abdou Rahman kan ñu ngi lay dalal moom mooy secrétaire général national bu US salaamaaleykum. waaleykum salaam El Amin. maa ngi profiter ci occasion bi pour euh, saluer donc euh, tous les internautes qui nous suivent à travers le monde asalaamaaleykum a vous. macha allah Abdourahmane Kane moom mooy euh, directeur wala secrétaire général national euh, bu US ngeen baal ma moom euh, moom mi nga xamante ne moom mooy jamono ji nekkoon secrétaire général national bu union des enseignants justement du Sénégal bokk ci li nga xam moom mooy kuréel bu am solo tey jii concept bi maanaam journée morte la. US dañoo ñëw booloo euh, ci xeex bi nga xamante ne wala ci woote bi nga xamante ne CUSEMS ak SAEMS woote woon nañ ko euh, ak SAME ak euh, SAEMS exactement mën nga mën nañu xam lan moo tax yéen ngeen ñëw booloo ci xeex bi nga xamante ne ñaari syndicat yooyu bu door nañ ko donc ñaari syndicat yooyu dañu créer benn alliance au niveau du moyen secondaire donc vu que l'union des enseignants du Sénégal à nu pour cent nous sommes au niveau du moyen secondaire donc nous nous sommes solidarisés donc euh, à cette de journée morte au niveau du moyen secondaire pour wane suñu mécontentement wane aussi que ñoom ak ñun lu ñuy xeex yépp benn la mais lu gën a tax ñu radicaliser wu mooy les menaces du ministre de l'éducation nationale les menaces du ministre de l'éducation nationale est-ce que ay menaces ngeen ko jëlee mais ce sont des menaces à peine voilées dire qu'ils vont revenir sur des accords c'est c'est une menace vous savez discours franc aussi pas du tout ah ni franc ni responsable parce que ñun fi ñu ko doon xalaat fi ñu ko doon xaar du foofu ne yaakaar naa ne ñoo xam ne am nañu trois mois de vacances ñu gis ñu def ay déclaration def ay ñaxtu école ibi ñu déposer préavis de grève yaakaar naa ne attitude responsable deux gouvernant c'est de convoquer au moins ñi nga xam ne ñooy ñaxtu xam au moins lan la xool ban saafara la ci mën a indi parce que ñu xam ne nag ñoom comme ñun nous tous des sénégalais lu ñu tax a jug mooy lu jëmale école sénégalaise ci kanam. alors est-ce que jéem ngeen a waxtaan euh, ci njëlbéen ba parce que dafa amoon benn conseil interministériel sur l'éducation nationale boo xamante defoon nañu ko est-ce que vous avez été représenté est-ce que bi ngeen fa demee waxtaan ngeen tegaat li nga xam mooy les accords euh, sur la table pour ñu am euh, maanaam déggoo laata ñuy dem ci grève bi la. waa SAEMS e waa CUSEMS e ils y étaient parce que était très forte parce que lu ñu waxoon tënkoon ak ñoom yëpp defuñu ko et d'autant plus qu'il y a des problèmes pendants yu fi nekk c'est la question des décisionnaires ce problème là nous nous pensons que c'est incompressible pour que ñu mën a am une année scolaire paisible c'est de régler définitivement la question des décisionnaires qu'on les mette dans le corps des fonctionnaires d'autant plus que c'est pas de leur faute d'accord euh, lu am solo la nga wax ko signaler ko encore une fois Euh, c' est vrai que yaa ngi wax sànq maa ngi lay dégg ñu ne accord yi ñu defoon defuñu ko mais euh, est ce que tamit di ngeen d' accord ne am na yoo xamante ne def nañ ko euh, ci gouvernement bi la ci accord yi nga xamante ne xëy na ñu ngi ko doon maanaam ci condition de travail mais mm-hmm. aussi ci li nga xam ne moom mooy liggéeyu nekkin ñi nga xam ne ñoom ñooy corps professoral yi enseignants yi il faut pas vraiment ñu sànni lépp mais bien sûr am na loo xamante ne gouvernement bi na ko am na am na lu mu def waaye am na lu des lu bare lu des nag moo ëpp lu mu jot a def te nous osons espérer que avant seen seen nguur di jeex. Hmm. au moins ils ont ils vont honorer leur parole. d'accord une journée morte loolu style de combat bu bees la. Euh, dañ doon gis ngeen di def ay débrayage wala ngeen di def ay grève hmm. pourquoi une journée morte exactement une journée morte c'est pour paralyser le système éducatif à 100% au niveau du mais est-ce que c'est la solution face à ce gouvernement vous savez euh, waxtaan nag ku gëmba tëx lu amul lu ko gën a métti on a l'impression de parler devant un mur et la meilleure manière de le faire réagir c'est d'actionner te yaakaar naa ni fi la ñu fa la si la ñu nekk fu mu nekk. mais est-ce que yéen a ngi sóoraale xale yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy nekk des victimes. ci li nga xam moom mooy euh, mot d'ordre bi. yéen vous savez yéen vous parlez en qualité de père de famille en qualité de parent d'élève mais nous double triple casquette même la ñu am nous sommes parents d'élèves nous sommes des enseignants xale yi suñuy doom lañu suñuy jarbaat lañu donc yéen soo amee intérêt benn yoon am nañ ci intérêt ñaari yoon wala ñeenti yoon. donc ñun lépp lu ñuy def nañu xam ne pour que école bi dox la te lépp lu ñu ci mun nañ ko def parce que xam nañu ne école su amul syndicat dalul am waxtuma ak jàngalekat donc on a intérêt notre outil de travail ñu sauvegarder ko lépp lu ñu ci ti def pour lu ko jëmalee kalam lu ko gën a belliloo hmm. incha nu la le ferons lu ñu bàyyi kenn ku ko yàq est-ce que da ngeen jàpp ne gouvernement bi dafay yàq ben vous savez il faut il faut des fois avoir le courage d'avoir une lecture et de l'interpréter vous savez tend vers une privatisation les gens ne le sentent pas mais ñun ñu ngi tirer sur la sonnette d'alarme cette école publique tend vers une privatisation ñu ngi koy yàq te bés bu ñu koy yàqee c'est pour pouvoir privatiser ko nañu bañ ñu xippi suñuy bët te xam ne lii raam si ñag ba la jëm ñu nekk syndicat suñu rôle c'est de prévenir et nous sommes en train de prévenir il ne faudrait pas ëllëg ñu ne ñu xamuñu ko woon hmm. non d'accord privatisation boobu ngay wax euh, le plus souvent yéen enseignants yi ci bopp yéen ay euh, samp ay école privée euh, ci wet ba que ça aussi vous n'avez pas une part de responsabilité non là y a yéen a ngi def amalgame du benn nous nous parlons de l'école publique sénégalaise ah. parce que vous savez l'école publique sénégalaise ne suffit pas pour vraiment prendre tous nos enfants c'est pas pour rien l'État du Sénégal même dit jox subvention yenn école privée yi pour les aider parce que xam na ne ñu ngi koy dimbali pour scolariser ay doomam lu mu waroon def moom ko école privée yaa ngi koy complété et nous nous sommes des professionnels de l'éducation ah. on a été formés pour cela moo tax les écoles privées font appel souvent à notre expertise pour qu'on les aide et je pense que ce n'est qu'au bénéfice de nos enfants et de l'école bokk na ci li ngeen di xeex Abdourahmane Kane euh, ci li nga xamante moom mooy jëm ci bi moo doon aussi euh, ngeen wax ko ñu dégg ko euh, gannaaw bind bi nga xamante ne def ngeen ko mhm. muy la libération immédiate de ñenn ñi nga xamante ne ay professeurs lañ wala ay enseignants lañ ñu tegoon leen loxo est-ce que yéen tamit jàpp ngeen ne mhm. jamono ji peut-être li ngeen di def mën na ñu bàyyi leen mais minorité bi ñu doon euh, je ne je ne dis pas que waruñu waruñu xeex waxee boobu encore une fois mm-hmm. c'est tout à fait normal pour ñu bàyyi leen parce que mm-hmm. kenn yéenewul sax sa noon euh, prison mais est-ce que jàpp nga ne ñoom mm-hmm. jamono ji euh, minorité boobu ñuy xeexal war na mën a tax ñuy comme ni ma ko waxee sànq la l'avenir de beaucoup de jeunes au Sénégal y compris la jeunesse bi nga xam ñoom ñoo nekk ci moyen secondaire vous savez le mot sacrifier est peu lourd hein, trop chargé on ne sacrifie pas nous sommes en train de contribuer à la démocratie dans ce pays. Vous savez, un enseignant, ça passe, c'est pas la prison. Nous sommes des intellectuels. Nous ça réfléchissons. Non, non, non. Deful dal lul wone appartenance am. C'est-à-dire Il fait la politique, wone na appartenance am, jël nañ ko tëj. Nous nous disons que la place de l'enseignant, c'est pas la prison. Oui, mais ku wone appartenance am def loo xamante ne war nañ la yoon war na tegu sa kaw. comme euh, quel qu'en soit corps bi nga war a bokk corps de métier bi nga war a bokk est-ce que war na tax. non corps boobu jóg pour ñeneen ñeneen ñi je parle pas d'eux moi je parle des enseignants ñu def mooy il faut ah. qu'on fasse des choses entre euh, enseignant bi bu solee mbubu enseignant ak mm-hmm. enseignant bi bu solee beneen casquette ba def ci loo xamante ne xëy na euh, yoon mën na am na am na yoon ci moom bon vous savez l'enseignant quel que soit fu mu nekk casquette enseignant am day des ci moom ça quand même c'est le fort et le propre des éducateurs des enseignants maintenant parce que def na politique parce que ça m'étonnerait mu def loo xam ne c'est compr c'est c'est répréhensible hmm. ñu ñu ca jëpp ils n'ont rien fait de répréhensible ils ont été donc au mauvais moment à la mauvaise place tout simplement mais defuñu dara loo xam ne c'est répréhensible quelle que soit nag leur appartenance politique encore une fois je le dis la place de l'enseignant c'est pas en prison. Abdourahmane Kane quand on fait un point ñu toog hmm. xool situation njàng bi ak njàngale bi ci biir réewu Sénégal vous vous quoi est-ce dalal na xel fii ak euh, at yu ñu dëgmal. dëgg fa dëgg neex yàlla ak ñii ki ma gis ni à la tête de notre secteur de l'éducation dalalul xel. Cheikh dalalul xel. moi qui vous parle depuis plusieurs années je à la tête de ce syndicat on ne s'est jamais vu et c'est notre deuxième préavis de grève que nous déposons vous pensez que ça sérieux pour koo xam ne dañ la jox destiné benn secteur. yow ñi nga war nga war a recevoir recevoir oo leen ba pare di brandir ay menaces. mu ngi recevoir le G7. avec beaucoup de difficultés di échanger avec les les collègues du G7 et vous verrez donc c'est quelqu'un koo xam ne c'est à voir qu'il est sur son piédestal Donc euh, peut-être ils pensent que c'est un intouchable, mais je vous dis que présentement, nous, Union des enseignants du Sénégal, nous ne le sentons pas du tout. Et qu'est-ce que vous proposez situation Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, avec un donc bon cahier de sage qui soit à l'écoute. l'homme qu'il faut à la place qu'il Non, nous au niveau de l'Union des enseignants du Sénégal, nous ne le sentons pas. Parce que nous, nous a un problème. Nous savons qu'ils ont un problème, nous devons les écouter, xool li nga mun nga def ko li nga mënul mënoo ko li nga xam ne war ngeen ci kii ngeen créer ay commission et la vie avance nous sommes des sénégalais ils ne sont pas plus sénégalais que nous nous nous ne sommes pas plus sénégalais qu'eux d'accord c'est quoi la suite par rapport ak seen mot de grève si aujourd'hui bu fekkente ne dégguñu leen woowuñu leen ngeen waxtaan c'est quoi la suite mais déjà commencé nañ ko par une journée morte et ça ira crescendo, Inch'Allah. Crescendo, c'est-à-dire vous allez aller en grève totale vous allez paralyser bon, vous, savez, quand on va en guerre, ces armes, euh, il n'est pas très conseillé de les euh, divulguer. Oui, mais, mais, mais vous verrez vous-même. exactement. Euh, le moment d'accord beneen ponk boo xamante ne bëggoon naa ñu waxtaanee ko c'est pas tout simplement l'éducation dans le moyen secondaire moom paralysé tout à fait gis nañu na ñu ngi koy gis ah a assez, c'est assez. Qu'on ouvre les facultés, que nos enfants aillent étudier, euh, étudier mm. et qu'on sache que l'université, c'est un temple du savoir. Bien que ces étudiants soient des intellectuels, ils ont le droit d'avoir des appartenances politiques, mais nag nañu xam ne université temple du savoir la donc seen manteau de politicien mun nañ ko teg ci bunt bi suñu paree ñu jëlaat ko mais une fois à l'intérieur temple du savoir la donc nañ ko ibbi ibbi campus social bi ñu mun a loger mun a dem jàngi nekk dans de bonnes condition dafa am benn ponk boo xamante ne ñu bëri ñu ngi koy wax ci biir réew bu Sénégal que ne yéen syndicats yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci enseignement moyen secondaire bi dafay da ngeen féewaloo euh, est-ce que vous confirmez cela. feolo je dirais pas que dañu féewaloo mais pour l'instant des fois les gens peuvent avoir l'impression que nous allons en ordre dispersé mais à chaque fois nous nous retrouvons autour de l'essentiel pour avancer ensemble. D'accord. Et incessamment vous verrez vous-même. à on verra quoi on verra ci. les regroupements les regroupements ngeen boole xeex pour benn. xeex benn incha allah yëkkatindoo dóorandoo. Euh, dernière question bi ñuy joxe euh, tax euh, temps bi jeex na jamono ji Abdourahmane Kane xeex bi ngeen di xamante ne yéen a ngi koy xeex yéen a ngi xeex sur des conditions c' bien beau yéen ngi xeex encore une fois pour ñu tabaxaat l' éducation nationale parfois ñu ngi doon wax pour insérer justement li nga xam mooy les langues nationales ci biir njàng bi ak yeneen ak yeneen i xeet maanaam jéem a xool pour peut être dès le bas ñu inclure xale yi ci pour euh, le bien-être de l'éducation du mais tout à fait xam nit ñi ñoo jël rek quelques points fësal ko mais y un déficit quelques points yooyu yéen a ko fësal parce que yéen a koy bind seen bataaxal ñun ñoo koy bind ak yeleen bataax ak yeleen moo tax ma quelques points yooyu la ñu mais vous savez y un déficit criard d'enseignants dans toutes les régions du Sénégal il faut que régler ko le problème des abris provisoires parce cours yeeg renforcement et cetera il faut que xale yu nekk dans un cadre boo xam ne c'est propice pour que ñu mën a jàng loolu c'est pas réuni donc les abris provisoires il faut que ñu résorber ko effectivement nous sommes en 2023 les élèves très tôt à l'élémentaire il est temps que léegi ñu dugal ci anglais dugal ci informatique pour que les gens quand même mun a am les ba de ces de ces outils hmm. te ñu xam ne maintenant àdduna dafa évoluer dafa day dafay changer dafa ngi changer ba pare dafay dem vers une autre mutation donc il faut que ñu adapté ko def une mise à jour quand même de notre système éducatif d'accord merci beaucoup Abdourahmane kan moom moo nekkoon suñu gan tey jii ci li nga xam moom mooy seen émission 12 minutes ki mbokk ëllëg ak jàmm ba tey dañuy wéy ci li nga xam moom moo jëm ci wàllu muñe ak grève bi nga xamante ne ak taxawaay bi nga xamante ne euh, enseignants yi wala sax seen syndicat am nañ ko ëllëg Ndongo Sarr moom la ñuy dalal moom bi nga xam moom mooy directeur secrétaire général national bu CUSEMS àllarba ak jàmm